alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi nuyu mbokk yi yi fi teew di jiital ci nuyoo bi kilifay jataay bi ki ci jiitu teewal Cheikh Abul Baraka mi kilifa kër Cheikh Amadou Fadel Cheikh Amadou Bachir mii jawriñ ji ak Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne mooy jawriñu liggéey bii di màggal mooy Serigne Mamour Mbacke moom Cheikh Amadou Fadel fekkoog rakkam fekkoog rakkam Serigne Mahmoudou Xabban Mbacke ak bi ki nga xam ne moo jiitee yëngu yi aju ci wàllu yëpp di seen rak ak Cheikh Ahmadul Badawi yàlla na yàlla sàmm leen ca aar leen guddal seen i fan. ñu fekk fii ba léegi fekkoo ak sëriñ Dàkko Mbàkke moom Cheikh Amadou Fadil ñu fekkoog seenu njaboot yi nga xam ne ñoom it duñu sonn duñu tàyyi duñu toq ci liggéey bi ca mooy di wone seen jaloorey maam yi nga xam ne am na lu jar wone lool ca buñ ci doon nekk waxtu wu nekk suba ngoon du tax mu jeex ñu fekk si nag tey kenn ci kër Cheikh Amadou Fadil di sunu wayjur Serigne Thierno Diaw moom it di ko xam ne ñëpp xam nañ ko ci kër gi doomi Serigne Mat Diaw Baxa xam diggante wayjuram ak Cheikh Amadou Fadil ba sababoon mu jëlal ko jox ko Cheikh Fadil mu yar ko tàggat ko bay nekk ci moom lépp moo ko ci def kon ñi ngi nuyu ak njabootam bu baax a baax ñi fi teew ñëpp bay wuñu kenn di tàmbali waxtaan wi ngir bañ a guddal rek daayira Cheikh Amadou Cheikh Amadou Fadal yi ñu ngi fi ci njiital seen jawriñ sëñ Dame Fall teew ak ñi mu àndal ñëpp waaye ngir bañ a guddal ndax kilifa yi jataay bi bañ yàgg ku ne xam na ne bu ñu yemoon ci li Cheikh Abul Baraka jàng kese ñu juf dem rek mu doy sëkk tem bi ñuy waxtaane ndax aaya alqur aayat alquran yi mu jànge rawat na bi mu tëjee mooy dëgg-dëgg ak tasaamux muy tomb bi ñuy waxtaane diggante mu Cheikh Abdoul Fadil ca mooy yor jikko ju baax ju sel joo xam ne doo xàmmee ab soppeekum noonu doo xàmmee ku la bëgg ku la bañ doo xàmmee ku lay defal ak ku lay tooñ du leen xàmmee jënn jikko ju sell ju mag ju mag ju rafet jooju ngay jëflante ak ñëpp loolu mooy dëgg-dëgg ak tasaamu mooy tomb bi nga xam ne moom la ñuy war a waxtaane ci diggante Cheikh Amadou Fadil te ñu xam ko ci yaatu xol wala yaatu dënn ñu di ko wax tolérance wala nu ñu ko mën a tekkee ki ñu defal waxtaan yi di sëriñ Khadim njaay sëriñ Khadim Ndiaye du gan ci kër gi ndax doom yi sëñ Përi njaay la maamam bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo bindaloon Cheikh Ahmadou Cheikh Khadim radiyallahu anhu kaamilum njànjaba ci benn bés waaye juróom bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo taxawoon ak Cheikh Ahmadou Fadil ndax tundu njëgeej yàlla dogal na Serigne Touba radiyallahu anhu moo fa yabaloon Serigne Falilu ak la ca xewoon lépp mu fekk fa sunu maam ya kon loolu kooku du gan ci ci kër gi ñu bari mën nañ ko miin ci bañ a miin ci yenn jataay yi waaye du fi gan doy na nag mën naa gudd waaye doon na sëkk ci xamle ko ne moom moo jàngal sëriñ abul baraka mii doon jàng alquran ji moo ko jàngal alquran ba mokkal doy na sëkk ci xamle ko kon maanaam moo ko jàngal alquran ba mu mokkal te lii mu jàng it nii la ko ko jàngale woon ba muy yëpp Égypte maanaam lii nekkul woon lu mu fa jëggaani woon yóbbaale woon na ko fa ndax ci concours boo xam ne ci lii la fa wone moo taxoon ñu woon ko foofu kon doy na sëkk xam ne sëriñ xaadim ne kon moom moo ko jàngal di jàngal ko alquran di ab imam di ab euh, defkatu waxtaan boo xam ne ñëpp xam nañ ko te incha allah taala bu ñu demee ba ci biir waxtaan wi ngir bañ a guddal des na gën a xam kan mooy Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam ne moo ñu war a defal waxtaan wi tomb bi nekk a Cheikh Mouhamadul Fadil wa tasaamux mooy sëriñ Fadilu ak yaatu dënn Cheikh Mouhamadou Fadil ak yaatu dënn jikko rafet ji mu yore woon incha allah taala bu jeexalee Cheikh Mouhamadul Fadil Bousso Tamba dana ci def ak. Euh, commentaire bu gàtt incha allah kon ñu bañ a guddal kàddu gi jox sunu mag sëriñ Xaadim Njaay euh, bismillah rahmaani rahim bismillahi arrahmani arrahim والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخير خدامه wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wa hayyi' lanaa min amrinaa rashadaa alxuduuru alkiraam assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh suñ boroom yàlla subhaanahu wa taala ñi ngi lay bàkk di la kañ di la ñaan tawfiq bu dolliku di la sant ci xewal gu tol bi nu toog di xéewloo waxtaane kii nga xam ne moom la bëgg a waxtaane ñu ngi nuyu bu baax kilifay jataay bi ngir bañ a guddal dañuy àbb rekk nuyoo bi sëñ alxaaji nuyoo woon xanaa dolli ca ak ñaan ñaan gu ñuy ñaanal ñi waral jataay bi ñépp ak seeni kilifa te kilifa gu mag a dëgg-dëgg di cheikh mouhamadinil muntaka mi nga xam ne yoonu murit wépp seenub nos ci loxoom la nekk te mu di ko wammat wammat gu bégal ñépp Euh, di sant Cheikh Ahmad al Badawi mi nga xam ne euh, ci moom la suñuy tànk ñëw ci jataay bi jaare xam naa tashrif la mooy teraanga la ak bëgg ñoo dimbale ba tax ñuy waxtaane kii walla nu koy jéem a waxtaane ndax du ko neex a xam wala mënees na cee xam rekk kon tomb bi nga xam ne moom lañ tudd léegi bëgg koo waxtaane ci Cheikh Mouhamad Fadal muy moom ci boppam ak at tasaamuh boo bëggee wax diw ak nàngam mooy alaaka relation bi leen boole ak ni mu mel ci loolu li ñu wax ay muwaasafaat kon boo nee Cheikh Mouhamad Fadal ak tasaamux faaw nga wax nubza faaw nga wax tuuti ci Cheikh Fadalu Mbàkke boo waxee ci moom bañ bëgg a jaaxle nga andi jikkoy jure yi jooju nga xam ne moo ëmb jikko yépp nga taariif mooy nga leeral définir tasaamux mooy lan boo noppee nag nga doog a rabt diggante taarif bu njëkk bi ak bu mujj bi doog a conclure mooy nga doog a tëj noonu lan jéem a bëgg a tënke waxtaan wi donte am na weneen yoon wuñ ko mën a jaarale waaye woowu benn la ci yoon yi kon tasaamux moom lañuy ñuy wax mustawa ruqiyi min al axlaaq mustawa bi gën a kawe ci jikko yi tolluwaay ci yéeg jëm ca kaw ci ay jikko euh, tasaanu benn la ci dees na wax itam assamaaxa dees na wax itam alafu dees na wax itam arrahmatu assamaaxa mooy nit ku yomb kuñ mën a jëflanteel dees na wax itam koo xam ne du jàpp dara du jàppal nit lu yiwee di lum def mbaa mu wax ko ci biir tasaamux tam ci la arrahmatu mu yërmaande ci la dugg li ñuy wax saatu sadr mooy yaatu dënn xajoo lu baree bari ba tey ci biir tasaamux la bokk wala ci biir samaaxa ndax boo nee tasaamux kon tafaaul nga wax waaye ña ngi ko xare ci biir samaaxa ci boppam al bu'du min at taassub mooy sori parparloo nga xam ne yow amoo xaaj ak seen wala xeej ak seen moo tax ñu ne afa ala atharihi fomp wala maasale goo maasale jeexiiti li kii doon jëf maanaam ki nga xam ne dafa def mbir mu rafetut mbaa mu wax ko jëme ci yow nga ñàkk ko fayu waaye ba noppi kenn du ko xame ci yow loolu muy afu te mënee su ko am lu dul ci biir samaaxa li ñu wax al xilmu itam muy lawet ak asafxu fasfaxi safxal jamil baatu safx boobu rek boo ci yàggoon tuuti ndax bu nee asafxul jamil bokkut ak safxu kese loolu itam ku yaatuwul dënn ku amul li ñuy wax samaaxa mën a def ko tasaamux du ko mën a def moo tax sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom lañu ko tuddee ginnaaw bi nga xamee ne ubbi nañu makka ñu jàpp mbooloo mu dul jeex ci yéefar yi ñoom ñépp taxaw ci kanamam sallallahu alayhi wa sallama mu woo leen ñu toog kenn ku ne di rag-ragi mu ne leen ma tazunnuuna anni faa'ilun bikum ana lan ngeen jortu ne moom laay jëflanteeg yéen wala moom laay jëf ci yéen ñu ne ko anta axun karimun yow day mbokk mu baax nga waaye ibnu axin karimin di doomi mbokk yu baax mooy yow jomb ngaa fayonte lu ñaaw séentuwuñ ko ci yow mu daat ne leen idhabu fa antum tulaqa dem leen boyal nañ leen kenn topp leen dara loolu jikko ju réy jooju bu ko nit ki yoree mooy ki nga xam ne nag bu jëf la bu jëflanteeg yow ca jikko ja mooy ci la tasaamu di doog a ñëwee nga xam ne day day làmboo loolu samaaxa bi doog cee mën a jëf def tafaawul boobu kon ki nga xam ne nag moom lañ bëgg a wax nan la meloon ci jikko ji ñu wax te jikko jooju sëriñ abul baraka aayaat quraaniya yi mu jàng ba ca fa muy jeexe dafay wane ne ndekete nit ki lépp lu rëy lu kawe lu rafet lu mu def mbaa mu mel ko dafa am ay istidaadaat ay waajtaay yu mu am yu tax mu mën a def loolu ndax ba muy jeexee dafa wax ne wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa nee na melokaan yu rëy yooyu ñu tudd kenn mënu koo àttan mëneesu koo jox kenn ñu bàyyi xel ne nit ki da koy daf koy jël ba noppi mu ne ci moom mu dog koo mën a jëfe moo tax duñ ko jox ku mënta muñ duñ ko jox tam ku amul cër cër nag lu ñuy waajal la kon bu ñu ñëwee Cheikh Mouhamed Fadel dañ xam ne am na waajtaay wu rëy rëy wu tax mu mën a am melokaan wu rëy wu rafet woowu moom sëriñ bu tedd bu baax boobu nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey mi ngi tukkee ci ñaari wayjur yoo xam ne jant ak weer lañu ci arabiya bu ñuy taarif bu ñuy wax nit ab dayoom walla ak kaweem wala aw melokaanam bëgg koo yéegal ci ñaari way jur dañ naan doomi shamsun wa qamar la mooy dañ naan kii daal mi ngi jóge ci diggante jant ak weer jant ak weer nag ku fa jóge yaakaar naa boo bëggee niitu rek bëgg lu leer rek mën ngaa dem ci moom ndax jant mboolem lu nit di jariñoo ci énergie yépp jant moo moo ñu koy jox naka noonu weeratam li muy joxe lépp ma ngi koy jële ci jant te lam cay jëlee bu ko jël bu ko ci jëlutoon jox ñu ko loola mënta ñëw ci nun direct faaw mu am fu mu jaar kon Cheikh Mouhamad Fadal ci diggante jant ak weer la jóge di doomi soxna Hawa Busu ak cheikhuna Ahmadul Xadim radiallahu anhu cheikh Mouhamad Fadal nag bala ñoo ñëw ci ñëw jamonoom dañuy jiital himmatuhu laaliya mooy yitteem ju kawe ja te yitte ju kawe ci kum mën a doon waaye rawatina am murit mooy personnalité yitte ju kawe mooy personnalité boo doon leeral yitte ju kawe mooy lan mooy nit ku bëggut lu tuuti te la muy jar pour am ko lépp da ko koy mën a jox nit ku bëggut lu tuuti lu kawe lu rëy rek la soxla waaye la muy jar lu mën a doon dana ko ko jaral ba mu joxe ko loolu nag personnalité foofu la tàmbalee fala la wala bu fa tàmbalee wut itam fa la mën a yem Cheikhul Xadim nag wa nafaxaatuhu rabbaniya fi nachati Cheikh Alfadili Mbakke xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallama neewa nañu inna lillahi ala ibadihi ala fa taarradu laha nee yàlla ameel na jaamam yi yu neex yu am njariñ yoo xam ne ruux rek moo ko mën a yëg yoo xam ne day wàcc di ñëw ci bindeef yi mu ne waay waaye taatan leen ko moom Cheikh Mouhamad Fadel dafa taatan ci Serigne Touba nuuraaniya goo xam ne waaye tokkamti ku ci soxna Awa Bousso ba tey nuuraaniya boo xam ne loolu moo ko jox istiadaat istiadaat mooy waajtaay buñ ko bëggoon a wax ci wolof ngir ñu xam ko xamin wu yomb mat moo jële ca àll ba gor ko indi ko bëgg koo xambu weer ba nga ko weer bàyyi ko ba mu wow nga di ko taal boole ca itam yu sew matt yu sew sewaan yaag ñax maag lépp pour mu tàkk waajtaay woowee tax boo taalee rek mu tàkk noonu la nit di mel bokkut ak matt moo indi mu tooy xip wala mu tawte boo koy taal ku ne xam na ne saxaar sa mën naa bari te tàkk da koy të mooy dañ koo waajalut bam mën a talaqi mën a jël lu baax li nga bëgg ci moom muy muy bérax yépp di ko jariñoo kon waajtaay wi nga xam ne nit ki mënu koo ñàkk doog a am li muy am waajtaay yooyu Cheikh Mouhamad Fadil ca la tàmbalee ba tax mu mujj fii nuy bëgg a wax benn nañ xool fan la gane àddina ak kañ la gane àddina ci zamaan bi ak makaan bi mooy barab bi mu ganee àddina nan la tudd daaru salaam daaru salaam mooy këru jàmm wala daaru salaam mooy kër yàlla mi tudd salaam moom mi nga xam ne bokk na ci turam yi assalaam ñaar yooyu yépp mën naa nekk waaye ku ganee àddina ci këru këru jàmm wala kër yàlla mi nga xam ne bokk na ci turam muy salaam nga ganee fa àddina ci laylatul jumaati guddi aljuma waaye ganee fa jamono ci bis bi nga xam ne walla guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yéege woon dem ca boroomam subhanahu wa taala nga xam ne isra wal miraaj rañaan gi ak yéeg gi yépp mi ngi ko def ci genn guddi googu alayhi salaatu wa salaam moom mu ñëw ci guddi googu moo tax ci waxiin wu siiw wu ñépp yàgg dégg te mu xoramu muy da daan wax ne yonent bi daf ne lay ma ne cëpp ma ne cëpp lay ku dégg olof dëgg-dëgg bu déggee baatu lay jëruñu ko koy leeral lay ku oyofut mënu koo def te ku oyof oyofaayut ne lay ku ne xam ne ni fa muy dali dana sori moo tax yonent bi bi mu nee lay fa mu egg mooy sidratul muntaha la egg lam waroon sax dem na ba loola mënatul a dem loola wàññi ko ba ko mu dem kon moom daa gën a woyof lam waroon kon moom mi ne cëpp itam ku ne xam ne ne cëpp ki ko def day indiwaale poids day indiwaale lu diis ak lu rëy rëy moo tax moom mi ne cëpp li mu indiwaale kenn xamut nu mu toll kon daaru salaama ngoog sirru tasmiyatiha yanjali fi nafsil kalimati ba pare weer woowu itam nekk min ixda ashhur al xurum wala al ashhurul xurum ñaar yépp baax na ñeenti weer yi nekk ci at mi yàlla jox ko orma jum joxul benn weer weer woowu itam xam ngeen ne am na lu baree baree bari lu ca nekk ci ay ay ngëneel kon sëriñ bi mu ñëw ci date boobu nga xam ne mooy ñaar fukki fan yi walla ñaar fukki guddi yi ak juróom-ñaar muy kasu rajab kaaf gi mooy ñaar fukk zaay bi mooy juróom-ñaar ñenn ñaan kastu rajab ak nu nañu di ko ko waxe waaye kasu rajabin kon ginnaaw loolu sëriñ bu tedd boobu itam fan la jànge bi mu ganee jamono ci dëkk boobu sëriñ Abdourahman Lo mu yore woon daaree sëriñ bi di jàngale sëriñ Abdourahman moo dem ci ndigalul sëriñ bu sóobee dem xibaar ko sëriñ bu mag bi fekk ma nga Tuuba mu joxe ne nañ ko tudde tur woowu sëriñ bu sóobe tudde ko ko muy lan Mouhamadul Fadil daani ki tur wi rek boo ne woon dalika fadlullahi yutihi man yasha ci biir alquran da dangay xam ne loolu kese doy na yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam nee na bi ma demee foofee ma dem ba fa fa ma war a mën a yem ma yem fa ba wax ak sama boroom jël fa la ma fay jële yonent bi nee na jële na fa ñett ñett yooya mu fa jële bu ñu ñëwee ci biir yaatu dënnuk Cheikh Mouhamad Fadel ak bari njariñam te amul lor dana feeñ ci biir loolu yonent bi nee na fa lañ ma joxe salawaatul xamsa julli juróom falaa ko jële nee na xawaatim suuratul baqara mujjug suuratu baqara itam fa lañ ko ko joxe foofu nag ñi jàng ulumul quraan ñoom ñoo gën a gaaw a xam loolu alquran jépp amana rasulu ba mu jeex moom la ci yonent bi sallallahu alayhi wa dem yàlla jox ko ko direct mu delsi waaye nag tawkiit nañ talaqi bi ci jibril loolu ku gëstu ulumul quran da xam nan la demee waaye ci gàttal nee na jëlee na fa salawaatul xamsa mujjug saar wu màgg woowu itam di suuratul baqara la ca desoon foofa lañ ko ko joxe ndax xam ngeen ne saar wi li muy gudd gudd ne lépp ñëwandoo wutoon benn yoon waaye am na lu ci desoon loo xam ne jël na ko foofa doog a ñëw nee na bu ñetteel ba mooy sallallahu alayhi wa nee na ci lañ ma maye itam jéggalal nañ ma sama xeet wi mboolem al muqximaat waaye liman lam yushrik billahi shay'an koo xam ne bokkaale woo ak yàlla mooy wutaloo yàlla beneen buur bu boo koy dendaleel nee na bàkkaar yi gën a rëy nee na am nga daraja yi bu ëllëgee ñu jéggal la ko ci sama ngëneel lu ma yàlla defal kon bu ñëwee ci ku tedd ki nag ñu gis moom ci boppam waajtaayam ci ay wayjur waajtaayam ci barab waajtaayam ci jamono waajtaayam ci nuñ ko yare nuñ ko xamale nga ñëw ci njariñ yi njariñ yoo xam ne yamalewu ko woon ci diw mii dadi murit yamalewu ko woon ci diw mii day ku féeteeg man ci cëri kër yi mu mu cëroom wala ñu cërale ma ko yamalewu ko woon ci nit ki ab jullit la waaye nit ki kii nit la rek kum mën a doon maanaam njariñam jariñoo nga ci moom te musu laa lor buñ ñëwee ci wàllu jikko ji bokk na ci jikko yi nga xam ne ku amul tasaamux du ko man mooy joxe seet loo xam ne nit ñi soxla nañ ko mu amal leen njariñ lool nga gàddul leen ko te gàlloo ca dara bokk na ca lim yóbbu màkka ciw nit ba léegi déggaguma ku wax lim bi ndax jafe gu mu jafee xam beneen ba ca des li mu jox ay bourse ci ay doomi aadama ju dem jànge mu booleel leen ca mbooleem lay tax ñu mën a jàng ñu dellusiwaat ak xam-xam bu ñë bu ma ñëwee ci wàllu aj màkka yi daa ci joxe benn misaal bu ndaw góor gu baax guñ doon wax sëriñ Ousmane Gàllaxo euh, mas na maa nettali lu ëpp benn yoon sax yoon yu bari xam naa neexoon na ci moom ak xëram ci sëriñ Fàllu ak yéem gum ko yéem mu daan ko wax lu bari mu ne ma am na benn bis ma dem ndindi fekk fa sëriñ bi bi ma dikkee fi ma toog nuyoog moom ba noppi mu dugg ci biir nee na bi mu génnee mu yëkkati enveloppe boo xam ne jox ma ko nee na ma génn diisaay bi yéem ma ma xool ko mu bari ci man lool nee na ma defe ne mën naa am daa am keneen kuñ ko doon jox te jaawale kook man nee na ma ñëwaat ne ko Mbàkke man de li ma jox euh, daa mel ni ndax dañ cee juum mu ne ko ci lan mu ne ko daa mel ni daa xaw a bari de daal di ko koy wan mu ne ko yaa ko moom yow bu fekkonte ne sax bëgg nga ma yóbbu la màkk sax dama la yóbbu màkk waaye yow yoway demal sa bopp mu ne ma maa ngi nii booba bi mu jógee màkk la ma wax loolu mu ne ma maa ngi nii dem naa màkk demal sama bopp te ba mu ma ko waxee ak léegi ku ma ne woon danaa garder lu ma cay deme ca déwén sa mu ñëw ma demaat mu ne ma maa ngi nii nit a ñëw ne ma dangay dem ma ne ko demoon naa ba noppi mu ne ma mënoo ñàkk a dem ndax def naa lépp ba noppi quwwatu yi maanaam Sëriñ Fàllu ak muriteem gu rëy te ak murite gu rëy jikko yu ñuy wax tasaamux maanaam yaatu dënn ci personnalité bu murit la bokk yaatu dënn yi dana la may nga nangul nit ñépp seen cër te doo parparloo ku xat dënn bu benn toog képp amoon day jàpp ne moo ci war a bu benn cër képp amoon day jàpp ne moo moom la war a doon bu ñu waxee nit sax ci daraja ju ñuy yëkkati nit du neex ci moom kon bokkul ci tasaamu muy xat jikko wala yaatu yaatulewoo ko sëriñ Mouhamadou Rachid Ndiaye mas naa nettali fekkewuma ko du man la ko nettali waaye sama mbokk sëriñ Habibou saaxo moom la ko nettali mu wax ma ko ñu doon waxtaan ci ay mbir bam ne ma sa bàyyi sëñ Modou Rachid man daal maam sëñ Fàllu yéem na ma lool ndax nijaay Modou nijaay bàyyi Modou nijaaya ma mu ne sëñ Modou Rachid da doon jàng alquran ba egg ci lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuun yàlla ne li nga xam ne mooy li ñuy wax albirru dëgg-dëgg muy ak mbaax dëgg-dëgg mënee su ko am ci di seet la la gën a lut nga di ko joxe waaye di seet la nga gën a bëgg nga joxe ko ca lañ koy amee Baye Modou Rachid nee na mu xool xool xool ne barkeelu yim jële woon ci sëñ Banji sëñ ji jële ko ci sëñ Touba. yooyu daal jàpp na ne ci kaw suuf looloo ko ci gënal mu dindi walisam jël fa ay mbind yoo xam ne mbindi ñu bari ñuñ mën a lima nga ca biir mu daal koy jël dem di ko yotti sëriñ Fallou ngir lantanaa loolu biir la jooju yàlla wax mu bëgg lool dëggu ci moom bi mu demee nuyoog sëñ Fallou daal di ko koy jox ne ko lii de ay addi yu ma la andi loon nee na bi muy xool. naan lii de mbindum diwa lii de mbindum sëñ diwa lii de mbindum bi mu egsee ci mbindum sëñ Mouhamadul Moustapha dafa summi mbaxanaam teg ci suuf ne lii de sama mbindum mag ju baax ja mbindum sëriñ bi rek magam ju baax jooju mbindam mi rek summil na ko mbaxana téyewaat mbind mi mu mel ni xam ngeen ne nit ay waxam melokaan la ci melokaanam ni ngay xoole nit xàmmee ne kee diwa bu dee koo xamoon boo toogee dégg kàddoom da ngay xam ni diwa kon nit ay waxam mooy jëmmam kon ginnaaw bu gisoon Cheikh Mouhamadul Moustapha cër ba mu koy jox biñ ko indilee mbindam noot cër boobu la ko jox moom bari na koo xam ne yaa ngi naan sëñ diw sëñ diw daanaka sëriñ sëriñ diw ci sëñ Fallou la tàmbalee taalibe bu mag même bu dee ab taalibeem sax tey mag. sëriñ la koy wax waaye du jaar ci turam mbokkam yi mbokkal sëriñ Touba amul kum ciy wax aw turu keseem te du da koy wax sëriñ diw loolu nangul nit ñi seen cër ba gisatoo sax sab cër loolu mooy yaatu dënn loolu mooy tasaamu mooy xajoo nit ñi te siiw na ci ay waxam ne daana wax ne xajoo naa leen xajoo seeni bang bang xam nga nit mën nga koy xajoo mu toog nga di ko defal li nga ko war a defal di def li nga mën waaye buy bang bangi nag nga bëmax ko ne ko sori ma waaye kuy bang bangi ba noppi te yàqalu la la ko war a defal loolu yaatu dënn dëgg dëgg dëgg moo ko moo koy man ndax bang bang moom wax dëgg yàlla kenn xamul lu tur wi rek daa xaw a yéeme lu kenn mënta tekki la mooy bang bang di yëngu yëngutu bu kenn mënta tekki mooy bang bang kon. Euh, bokk na ci jikkoom yooyu nga xam ne yu rëy la nga xam ne moo boot mboolem jikko yi muy li ñuy wax yaatu dënn wala tasaabo wala xajoo lu diis bokkoon na ci doylu gu mu doylu woon doylu itam jàmbaar dëgg dëgg dëgg moo koy man doylu dafa bari ay xeet am lu tuuti mu doy la bu jeexee nga muñ ba leneen ñëw bokkut ak am lu tuuti te ku ko bëgg nga jox ko te toog moom noonu la meloon te bokk na ci tafaawul walla tasaamux bu rafet mooy nit koo xam ne du jortu ci nit safaan loo ko andil ci ay wax ci ay njàmbat ci melokaan wu ne ci yow ak loo bëgg li ñuy wax tamaskun di yatim yatim lu wala di miskin miskin lu day daal di jàpp ni rek dangaa bëgg dangaa nga te amoo mu jox la mbaa mu wuti jox la am na ñoo xam ne tey saa boo ñëwoon di sàkku ci ñoom dara baat bu nekk danañ ko calculer wàññi ko ba xam kii li muy wax xel nangu na koom déet bu noppee mu ne kii daal day dóor rek ay dóor ab dóor kët la loolu bokkul ci jikko yi gën ab jullit day nangu ku ko nax kon waxtu wi dafa mel ni mi ngi dem lu bari waaye duñ ko jeexal cër bu rëy bi nga xam ne moom la ko Sëriñ Tuubaa jox ndax xam ngeen ne fu sëriñ bi nekk rek ca Mauritanie ca Jolof ci njaareem ci fépp fekk na ko fa te dafa takkoon laxasaayam di tarbiyewu ni ñépp di tarbiyewoo xëy du rek doon ab seex wala doomi ab sëriñ bu mag a mag waaye dafa laxasaayu di wut li ñuy wut di ko wut wutiin woo xam ne ña ko koy wute bariwut wala xamuñ ko ko koy wute ndax moom nanguwutoon sax wujuutam doon dara duma dara lay wax maa ngi ci biir sëriñ bi rekk kon loolu mooy li ñuy wax alfanaa boo jeexee ci mbir ba nekkatoo su boobaa loola yoway moom loolu itam mustawa bu xaw a kawe bu xaw a bu bu mëtuta yàgg la ndax mën naa gëlëmal nit te neexuta neexuta leeral ndax fanaa u moom baqaa u moo cay topp mu ngoog kon li ñuy wax tajdiidul bay'at ñëw na fekk ñépp di murit mu di ci iraada bi ci ñëw jamono gi ci yar bi ci lépp waaye mu dem ba yàgg nag ci ndimbalul sëriñ bi yéene gum leen yéene ba mu leen leera ne leena li ma yor niñ ciy jariñoo mooy néeg nii moom dafa dem daal tëgg ak xasidaam xasida goo xam ne xasida gi képp képp képp doy na leeral jikko yu rafet ak jikko ju yaatu ak mën a jëflante jëflante bu rafet maanaam bayit wu ci nekk rek dana ko génne yaa ayuha cheikhu nafisul murtaja yaa fatihan ma qablu kaana murtaja gis bi al murtaja bu njëkk bii mooy yow ku ñuy yaakaar walla ku ñu yaakaar ki yaa ayyuha cheikhu yow sëriñ bi nga xam ne an nafis mooy ku cher nga koo xam ne mëne suta wër ba gisaat sam kem al murtaja yow mi nga xam ne yoway kuñ yaakaar te yaa fatihan ma qablu kaana murtaja yow mi nga xam ne bi nga ñëwagut am na loo xam ne kenn mënu ca woon a jot waaye bi nga ñëwee ndax dafa tëju woon yaa ko tijji bañ man koo jariñoo mu ne ko yow moomee nag beatu bu nu watiya bil iraada lakum li kay axza bi xarqi aada wala li kay axza bi xarqi aada doon gi ma doon njaboot doon gi ma doon doom ci liñ koy waxe al bunuwatu jaay naa ko waaye njëg gi mooy al nekkatuma doom ab murit laa boo xam ne ñeel leen ana lan laa ci jublu li kay axza bi xarqi aada mooy damaa bëgg a doon kiimaan doon lu kenn xamut loolu laa lool moo tax ma jaay sama jureel jënde ko taalibe looloo ko may mu doon lu kenn xamut fi mu ne du men sëñ fàllu sëñ fàllu yu baree bari la dangay jël am sëñ fàllu mu nekk fóore mu kenn rawut nga xam ne dangaan borom xam nga nee rek mu jeex nga jël am sëñ mu jaamu yàlla di rukkoo ka sujuut ak wird du noppalu ba am lijaaba ba lum bëgg mu nekk loola dana nekk yàlla dana ko ca fekk sëñ muy sëñ Fallou moo xam ne ab wilaaya la nga ber ko ne muy sëñ Fallou mu murid boo xam ne day daanu ni ñëpp boo tuddee ki mu bëgg xamatul dara di sëñ Fallou di sëñ Fallou yu baree bari yoo xam ne dimension boo ci seet men la ci boo ko boolee yépp nag muy xar ko aada muy koo xam ne xamoo lu mu doon mu ne ko nag xam naa ne li ñu wax ku ñaan ñàkk boo jëndee moom mu ne ginnaaw jënd naa min baadi mastaraytumuha minni bi ngeen jëndee njuréel gi ba nangul ma ko muy ak iraada iraada googu muy murit gi ahdaytuha lakum def naa ko hadiya bi xëyri man ni waaye lu tuuti la ci man nag nit dana la jox fukki junni ba noppi réy ko na ah, yaakaar naa bu demee tey ceebam dana neex de ndax jox naa ko fukki junni waaye moom da ko koo jox ba noppi te jàpp ne bu amoon leneen jox ko ko moo tax bi xëyri man ni mooy yëguma ma ne jox naa la dara ndax xeeb naa ko sa jëmm weesu na loolu loolu nag ci la ko sëriñ Touba tontoo tontu lu rëy la nga xam ne cat la rek la ñuy wax da ko tontoo aayab alquran daf ne ko fa fal jawaabu fil masalatayni tontu li ma lay tontu ci ñaari laaj yooyu walla ñaari qadiya yooyu ndax fii du fi tudd masala qadiya la fi tudd ndax lu mantiqe la moo tax bu doon lu fiq la mën nañ ne masala la bu doon beneen kii la mënees waaye fii qadiya lañ ko fii mën a tudde ñaari mbir yooyu tontu li ma la ciy tontu mooy fala taalamu nafsum ma uxfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kaanu yacmaluun wa salaamun alaykum yasurrukum wa yanfaukum wala yadurrukum abadan wasalaamu ju mujj ji mooy jeexitalu risaala bi waaye wasalaamun alaykum jàmm ju nekk ci yéen yasurrukum joo xam ne mbégte kese lay doon ci yéen wa yanfauhum te da leen di jariñ wala yadurrukum te du leen lor mukk loolu moom laa lay jox daal ne ko wasalaam yi fi yam foofu kon boog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.